niki démb ci kanamu militant wu APR yu nekk ca France lañ njiitu réew mi doon dëggal ab victoire ca février 2024 askan wi nag xëy rek di ci yëy yàbbi ba xam daana bokkam déet Mamadou Sy Albert di ñu indil ab njàngat. waaw mën nañu wax que discours bi mu euh, def Paris. boobu moom wuute na ak yu mu doon def parce que du temps yëpp mu ngi doon wax wuy noo mais bii nee na nañ ko déglu dina wax ak askan bi ci Sénégal lu yàggul wax na ne que nañu mobiliser wax na ne moom mooy jiite wax na ne am na programme donc loolu lu muy tekki mooy que candidat la wante nag mënagul wax définitivement nekk naa candidat dafay xaar ba mu def discours euh, bi mu nar a def dina jël position bi nga xam ne du ñu nekk ci wuy non mu nekk nii moom mu ngi ci tànk nekk candidat bu ñu sukkandikoo ci analise ci politique bi mën nañoo xaarandi ay jàmmaarloo fileek nguur gi teggewul tànkam ci noonee mu bëgg a sampaat ndëndëm ca élection yi ñu dëgmal parce que opposition àndu ci société civile am na ñu ci àndul sénégalais am na ñu ci àndul donc su defee déclaration mën nañu séentu que dina am manifestation pour protestation euh, pour wane ne que ñoom ñooñu ànduñu ak candidature Macky Sall euh, lu ñu mën a xaar aussi mooy que waa Benno waa APR su fekkente moom déclaré na mais dina ñu def manifestation pour soutenir seen candidat donc c'est sûr e certain que dina am ay manifestation contre ak manifestation pour maintenant est-ce que dina am tension tension bi mu ngi dépendre est-ce que gouvernement bi dina nangu opposition def marche de de protestation